ba ñuy tàmbali émission bi vraiment mbégte bu rëy la si ñun euh, déggaat la ci ci waxtaan wi. Euh, jërëjëf Fatou Thiam Ngom man mii ma gën a kontaan di may retrouver euh, waa rajo Rewmi FM ak ay auditeurs am itam mm-hmm. dafa def nag dama amoon ay gàllankoor ca temps yële ñu génn ca gannaaw. Mm-hmm. ci sama wàllu wér-gi-yaram mhm. fekk itam ma nekkoon ci ay liggéey yu yaatu yaatu yaatu maanaam ci wàllu bind mhm. waaw xam nga nag yooyu boo ko boolee rek dafay daf dafa lay ñàkkal jot waaw waaye nag ñu ngi sant yàlla bu baax yàlla may nañu euh, santé boo xam ne bi ñu reprendre activité yi mhm. liggéey yi ñu nekkoon itam euh, alhamdulilah mi ngi avancé bu baax a baax a baax. kon nag ngeen amiin ngeen yokk ñu ñaanal mu sotteeg jàmm ak salaam. incha allah <laughs> ndaxte liggéey lay jëm ci askanu réewu Sénégal. Mm-hmm. ak ci génération future yi. Mm-hmm. baax na jërëjëf yal na yàlla yombal te barkeel lépp alors professeur ñu war a nag waxtaanee tey tolluwaay réew mi waaye lu jiitu ñu dem démba xam nga ni ki démba samedi 20 août ci la Sénégal en 1960 tàqaliko woon ak Mali fédération du Mali mu génnoon ca doon réewum boppam dema ak cëggalu guyam ni ñu koy waxee mm-hmm. lu jiitu loola itam wala gannaaw loola ay euh, réeroo am na ci wàllu kilifa yi doon euh, ŋànk réew ci wàllu politique Senghor ak mhm. Mamadou jaa loolo yëpp euh, bu ñu xoolee tey liy xew dafa mel ni am na lu luñ ci mën a jàngat euh, ñu tàmbalee professeur ak xëy na jàngat crise u 1962 euh, yi 63 mu amoon ay njeexital yoo xam ne aussi yaakaar naa ne ba léegi nii historiquement bu ñu xoolee dina am tey lu ñu ci mën a jàpp wala luy feeñ ba léegi ci réew mi doxee ana ban lëkkale nga mën a def ca la xewoon euh, euh, jamono yooyu ak lii di am tey ci wàllu politique ci wàllu ànd yi tas wante itam ci wàllu alliance ay coalition loolu yëpp euh, ñu koy gis tey gisoon ko itam démb. waaw maa ngi lay gërëm ci sa question bi xam nga ñun historien lañu maanaam dañuy liggéey ci xew-xew yu weesu loolu mooy histoire. Mm-hmm. histoire boo ko déggee rek mooy eh, càmbar yi xewoon démb mm-hmm. baatu histoire fi mu jógee ci grec moo di càmbar mm-hmm. boo ko tëggee ci wolof mm-hmm. càmbar xew-xew démb gi seet naka la tëre eh, seet lu nekk itam naka la amee ak lu ko indi ak lan la jur waaw loolu moom mooy suñu discipline ñun loolu la ñuy jàng université Dakar boole ci anthropologie ak sociologie euh, anthropologie bi nag ak sociologie bi dafay gën a leeral rek euh, li nga xam ne mooy xew xew démb yi hmm. suñu diggante Sénégal ak Mali euh, dafay yàgg diggante bu yàlla def la mu di sur le plan géographique ñu taqoo ami frontière yu yaatu diggante bi itam euh, dafa am histoire am maanaam euh, boo seetee depuis euh, même lu jiitu temps ay Sunjata Kayta hmm. ñi nga xam ne dañu jàng li ñu tuddee préhistoire ak protohistoire mu di ay xeetu jàngu xam-xam ci xew-xewu démb yi hmm. dañu wone ne am na ay nit yu bari ay xeet yu bari yoo xam ne yii boobu temps am na ay junni junni junni junni at ca gannaaw jóge ci wàllu Mali ñëw sanc fii ci Sénégal comme ni nga mën a amee itam ay populement yu bari yu jóge ci Mauritanie ñëw samp Sénégal comme ñi nga amee ay nit ñoo xam ne jóge fu gën a sori ba ay vallée du Niger ba ci Égypte ba ci Soudan ñëw toog ci Sénégal suñu diggante nag ak Mali dafa nekk diggante bu yàgg dafa nekk diggante boo xam ne bi itam euh, yàlla daf ko yàgg defar mu di jàmm ak salaam kii ñu tuddee Soundiata kayita nga xam ne grand conquérant la dafa moomoon fii yépp ba ci Atlantique bi hmm. wàcc sax ba ci ay réewu Côte d'Ivoire nga xam ne le peuple du du hmm. mu di un grand peuple de civilisation am yu bari yu ñëw yaatal tas ko ci seeni civilisation ci ñun ba ci ñi Gambie ba ci itam ni ma la ko waxee ci suuf côté Côte d'Ivoire hmm. ngay dégg lu ñu tuddee empire du Gabou am na ay sant yu siise siise yeeg yooyu yëpp ay sant yoo xam ne yëpp boo koy seet ma jóge jógee eh, ci empire du Mali bi empire du Mali tasee nag itam mu am fi yeneen yu fi amoon Jolof l'empire du Jolof ñëw fi moom itam eh, ni mu tasee Kajoor ñëw bawal ñëw Siin Saalum waaye ñoom ñëpp nag am na lu xam ne li jot nañ ko mu jóge woon ci empire du Mali. loolu mooy suñu cosaan bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg cosaan bi nga xam ne itam moo gën a euh, bees moo di ne bi ñu ubbee université de Dakar bii mm-hmm. ñu bari jóge Mali fi leen doon jàngee ñiy moo di fi leen doon jàngee ci Afrique de l'Ouest daal mm. képp ko xam ne kii waroon nga di jàng français yaa ngi ñëw. di ko jàng si fii ci Sénégal mu nekkoon loo xam ne lii lu lu yaatu la parce que université de Dakar bi dafa nekkoon université euh, française de rang mondial jàngalekat yu bari yu mag nekkoon fi di di seen xam-xam fédération du Mali bi muy sampu nekkoon lu rafet diggante Sénégal diggante Léopold Sédar ak Modibo Keïta. Mm -hmm. diggante yitam élite bi fi amoon ndaxte en 1956 dafa amoon lu ñu tuddee la loi cadre loi cadre Gaston Defferre hmm. dafa indi woon lu ñu tuddee ay gouvernements locaux maanaam ñun ñu am suñu suñu exécutif Mali am exécutif ñi ñëpp ñu xam ne ñoo bokkoon ci Eh, nguuru français ñu am ku nekk am exécutif ak ak législatif am mhm. mu forme benn élite ñoom nag ñu dem ba gis ne ñu war nañu jegeen indépendance euh, rafetul ku nekk di laajal sa bopp ku nekk di ñëw di négocier sa bopp mhm. te kenn amuloon doole boo xam ne bii man nga imposer dara France loolu moo taxoon ñu waroon a boole nag def ensemble jaagaloon nañ ko sax ba waa daw mi war nañ ci bokk hmm. <laughs> euh, euh, euh, ci ci ci ci ci ci ci laaj bi waaye mujj bi ñoom ñu ñu ñu ñu rocceeku hmm. mujj bi Sénégal mu di Senghor ak li ñu tuddee Soudan français moo hmm. moo moo moo doon Mali ak Modibo Keïta ñu ju lu juboo ne war nañu laaj ensemble suñu indépendance moo di indépendance fédération du Mali mu doon dox mu doon taxawaay bu rafet. Mhm. ci diggu intellectuel yi ci diggu eh, ñi jiite woon réew mi mu di itam lu rafet ci diggante ñaari réew yi. Mhm. ba demee ba loolu am fédération bi am ñu am benn drapeau am am hymne ñun bi ñu nekk ay élèves dañu ko doon eh, yeewu bi ñu ñëw école di di ko woy. Eh, mu di hymne boo xam ne bi hymne fédération du Mali la ak drapeau bi ñun ñëpp gis nañu loolu waaye nag ci biir euh, nguur gi dañoo xawoon a dañoo jubawu jubawuñu woon hmm. waaw waa Mali boo ñoom ñoo yore woon pouvoir exécutif bi présidence bi hmm. ñun Senghor nekkoon président assemblée bi hmm. waaw ci biir loolu itam nag euh, distribution post ministère yi mu amoon ci ay xëccoo waaw te comme ñun Sénégalais yi dañoo am itam suñu jikko boo xam ne bii am na yu bari duñ ko nangu mhm. lépp loo xam ne dafa xaw a nuru xeetu euh, noota rek duñ ci ànd ku mel ni Mamadou Dia mhm. mu nekkoon ku xam ne kii itam ko am taxawaay ku am ràññee mhm. gis ne ni ñu séddale poste yeeg yooyu jaaduwuloon loolu moo indi ñagas-ñagas yi ba indi épreuve de force bi ba fédération du Mali bi tas waaw ba mu tase itam nag euh, Modibo moom dem na ndaxte moom amoon na ay relation ak waa ak waa Union soviétique moom dafa doon réclamer socialisme mhm. am ay conseillers yoo xam ne Union soviétique la ñu jublu moom côté est ñun nag waa France lañu ñu gë la ñu gën a jegeñ mhm. voilà euh, euh, gën ci ci France nekk ak ak ak France waaw noonu la demee ba diggante bi daal ku nekk demal ku nekk demal si yoon. nekk demal sa bopp. waaw ku nekk demal sa bopp. loolu nag am na lu mu lu mu yàq. Hmm. ndaxte dafa fekk économie diggante Sénégal ak yi dañoo dañoo duggante woon lool nit ñi population yi jugante woon lool am Mali yu bari yoo xam ni dañoo sancoon fii. boo boo demee ba ci gaar gaar gaaru Dakar bi léegi sax quartier yi nekk foofu yëpp ay bambara ñoo ko dëkkoon nga xam ne ñoo nekkoon ci euh, bo chemin de fer bi waaw quartier yu bari itam Saint-Louis bambara ña nga fa donc séparation bi mu amee euh, yàq na am na lu mu yàq am na ñoo xam ne mujj nañu dellu seen dëkk am na ñoo xam ne itam. ay Sénégal yu nekkoon foofu yow nekkuloon loo xam ne lii doon na defar diggante ñaari population yi waaw Senghor itam moom fi ci jugee ànd ak Mamadou Dia ñu ñoom itam ñuy góorgóorlu pour mën a former euh, un gouvernement national boo xam ne bi da mën a demal boppam waaye nag ni nga ko xamee itam euh, diggante Dia ak. Euh, Euh, Senghor am ay ñagas-ñagas mm-hmm. ndaxte euh, Mamadou Dia président du conseil moom moo yoroon exécutif local bi mm-hmm. mu amoon ay doxalin yu mu bëggoon indi ci wàllu économie bi bi ñu amee nationalisation yi ci banque yi entreprise yu bari war ko sénégaliser mu doon politique bi nga xam ne Mamadou Dia moom moo ko indi. Mm-hmm. mu am ci biir ay sénégalais yoo xam ne yii ay homme d'affaires lañu am ay ministres yoo xam ne yii yu bëgg xëccoo pour jël ci entreprise yi yoo xam ne yu bari meem ñoo koy moom hmm. maanaam daal bëgga a pasar pasare xaalis yi te comme moom euh, nanguwut loolu nationaliste la te mu nekk ko xam ne ci dafa amoon taxawaayu jullit bu bu taxaw bu bu wóor hmm. mu xeex ci ak ñoom gaa yi nag

def motion de censure wàcce ko hmm. loolu itam nag indi réeroo ci digganteem ak Senghor waaw ñu ci bari itam gis na nekk Senghor euh, moo ci yu ci bari daal def ci xawoon na noppi parce que Mamour Dieng doon na koy gêné itam ci ci yu bëree bari hmm. waaw loolu moo indi ñam ñaar seen séparation bi Senghor nag euh, toogee daa daal def référendum en 1963 mhm. daal di supprimer poste premier ministre daal di indi régime présidentiel concentré tous les pouvoirs mhm. di doxal réew mi unifié ay nitam mhm. gis nga ni mu doxole ak Mamadou Dia ñu jàpp ko condamné ko à perpétuité yóbbu ko fële ca Kédougou ci prison boo xam ne bii prison bu garaaw la woon hmm. mu mu nekk fa moom ak ay moom ak waa joojo mu nekkoon daal ay moment yoo xam ne yii moment yu jafañ la ci ci moom ak ci peuple sénégalais hmm. te itam nag euh, Mamadou Dia dafa amoon lu mu indi woon ci réew mi hmm. non seulement indi woon pouvoir parlementaire. indi woon rigueur boo xam ne bii ci liggéey bi ak taxawaay bu am bu mat sëkk ci administration mm-hmm. dafa daal di jóg di ñëw di vérifier service administratif yëpp mm-hmm. mu di building mu di hôpital sus bu mën di am rek dafay ñëw di seet ba xam ñi ngi ña nga fa wala déet mm-hmm. nga ñi ngi liggéey wala liggéeyuñu mu ànd ci rigueur boo xam ne bii am ñu bari ñoo xam ne dañ dañ koy contar xam nga sénégalais rek. neexu leen woon. du du leen mën a neex. Hmm. waaye moom moo ci jiitu moom. Hmm. bañ koy wax ay palais petit palais yooyu def na moom dañuy dëkk Médina. Hmm. jël résidence Médina ci nekk ci population yi. bu ñu noddee mu dégg nodd yi bu mënee julli ji mu dem julli ji mu nekk ak population sénégalaise moom loolu moo doon taxawaayam. mu amoon politique économique boo xam bii. Euh, daf ko nas ak ku ñu tuddee le père Lebré mhm. père Lebré dominicain la ñoom ñoo nekkoon fii église bi nga xam ne mhm. moo nekk ci booru université mhm. moom moo indi planification ci Sénégal les premiers plan de développement économique et social Lebré moo ko nas àndi ci ak Mamadou Dia politique de nationalisation yooyu yëpp Mamadou di moo nekkoon à la base. si hmm. Mamadou Dia nag jógee nag léegi Senghor nag daal jël ay mbiram. téye ko ci loxoom. Hmm. nga xam ne nag ñoom itam di doon xëccu pour seen affaire bopp ñoom nag mujj fi ñoo toog yore réew mi. Hmm. Eh, bi ñu defee eh, référendum instauré prési pouvoir présidentiel premier ministre Senghor nag am pouvoir. téye parti bi yore ko ni mu ko neexee def ay élection élection bu mu def gañe ko ay cent pour cent mhm. noonu daal la fi toog ba ni mu fi jógee mhm. waaw loolu nag am na lu mu yàq ci askanu Sénégal mm. tey jii ni réew mi doxee euh, li nga wax nii daf ce am njeextal mais dana ci am njeextal ndaxte li ñu tuddee présidentialisme tigi mm. mais Senghor moo ko indi fii ci réew mi mm. concentration ndax ndax jamonoy président Mamadou Dia euh, euh, ñu ngi woon ci régime parlementaire. parlementaire nga xam ne chef du gouvernement bi moom mooy responsable de la politique. Mhm. léegi yow boo nee président yow yaay nommé ku la neex war a révoquer ku la neex yow yaay déterminer yépp yore pouvoir yépp mu di pouvoir benn nit. Mhm. waaw loolu am na lu mu yàq ci ci ci ci Sénégal. Mhm. waaw loolu. Euh, dafa indi centralisation du pouvoir euh, dana tax ba nit ñi député yi loolu sax boo ko seetee hmm. euh, je le dis avec beaucoup d'humour mm-hmm. kenn mënuloon a falu ci taawu euh, Senghor député bu fekkee ne Senghor nommé wule député moom moo lay tabb hmm. xam nga li wax ni tey jii nii diw sagam naan man député président la man député président la mais loolu Senghor moo ko fi indi moom moo moom parce que moom moo yore le pouvoir absolu hmm. ci ci parti am yore gouvernement bi itam di ko doxee lu mu ko neexee am nag pouvoir ci armée bi am pouvoir ci administration bi hmm. lu ko fi neexul du fi mën a am mais loolu moom moo indi cette culture nga xam ne Euh, député yi ci moom rek la ñu mën a wéeru mhm. nekkutuñu ay député yoo xam ne yii eh, population yi ñoo leen fal ñu war a ñëw taxaw défendre eh, population yi mhm. war a ñëw contre action gouvernementale waaye dañu nekk député yoo xam ne yii Senghor moo leen fallu ku ci nekk moo moo la tabb fii moo la jox yi nga eh, li nga yore te Senghor it nekk personnalité boo xam ne bi une forte personnalité. Mhm. wa waa France téyele ko mu doon De Gaulle ak Pompidou ñi nekk ñëpp man mu nekk seen nit. Mhm. xam nga loolu il ne fait cette culture là man député président la député président la mhm. waaw. Euh, ci biir nag itam nag amoon na des députés nga xam ne ay nit de valeur la ñu jàng la ñu ay ay mukallaf ñu. ñi ñu naan les députés du peuple. waaw ñoo ñoo ñoo ñoo xam ne ñii euh, ñoom ñëpp sax ay députés du peuple ay. forte personnalité la xam ne am na fu ñu féetale seen ba pare. ay forte personnalité la ñu mais malgré tout ce sont les députés du président Senghor. d'accord dañ doon bañ. li li déedéet li Senghor bëgg la ñuy ah. <laughs> loolu dafa yàgg. d'accord ay kilifa la yu mag yoo xam ne ñii jàng nañu ay intellectuel lañu hmm. ay nit lañu yoo xam ne ñii am nañu taxaw bu wóor waaye nag ay député président Senghor lañu woon. d'accord kenn mënul contre Senghor di rester ci gouvernement wala di rester ci parlement bi. Hmm, hmm. culture boobu mu indi. moo law moo moo nekk ci law ba ci Abdou Diouf. moo wëy itam mm-hmm. ba ci Ablaye Wade moo wëy itam ba ci Macky Sall mm-hmm. culture boobu daf fi yàgg député du président de la république président moo fi nekk benn nit yore pouvoir bi euh, yore armée bi yore mm-hmm. administration bi di fal ak di folli yore caisse noire kooku boo ko contéré mais dafa lay néewal doole moo tax ñoom dañuy tafu ci moom nekk député du président de la république lu mu joxoñ ñu dagg waaw nga xam lu ñu mën am taxawaay bi nga xam ne mooy taxawaayu autonomie ak indépendance mën a wax déet bu fekkee ne déet lañu xalaat bu dee waaw ñu xam ne itam waaw la ñu mën a xalaat loolu régime présidentialiste fort moom moo ko indi loolu nag amee lu mu yàq ci askanu réewu Sénégal moo ne tey de euh, euh, euh, professeur bi ñu jubee législative yi opposition bi mi ngi doon diggee cohabitation ni élection législative yi tëddee itam ñu bari jàpp nañu ne xëy na Benno Bokk Yaakaar dafa rëcc rek waaye rëccagul sax daanaka ni ko ni ko Ousmane ko waxee kenn amagul majorité jamono yi ndax yaakaar nga ni lañu amoon jamono yi président Mamadou Dia mu jiite conseil du gouvernement am lool doole ca assemblée nationale lu ñu wotewul du jàll loola mënees na caa delluwaat tey gannaaw législative yi ñu génn. non yaakaaruma ko. Hmm. c'est-à-dire que ñun Sénégalais dañu war a def ndànk suñuy wax. Hmm. ndaxte cohabitation baat la boo xarit bi France yi ñoom ñoo ko moom. d'accord te ñoom seen système cinquième république mën na ko permettre na ko. Hmm. président bi am na loo xam ne ay compétence am la légal. séparation du pouvoir dafa am. premier ministre bi am loo xam ne lii ay domaine am la kenn du ko laal. Hmm. président am domaine réserve boo kenn du ko laal. Hmm. Euh, parlement bi am domaine boo xam ne kenn du ko laal justice bi tam di jouer rôle am xam ne kenn du ko laal mu am ay institutions fortes hmm. li Malcolm Obama wax des institutions fortes. animées par des on a de fortes chances pour mën a teg ci yoon. waaw gis nga Chirac ah, ni mu ni mu ni mu nekk woon gis nga pré Balladur itam ni ni mu nekk woon ak ak ak ak ak Mitterrand. Hmm. gis nga Chirac ni mu nekk woon ak ak Lionel Jospin. Hmm. kii dafa yore parteem ki yore parteem ki yore domaine am ki yore domaine am. Hmm. kenn mënul yàqal kenn parce que ku ci nekk fort nga. institution de la république for na mhm. euh, euh, justice bi mi ngi ku wax mu laal la justice bi moom mu di président mu di député ñoom pouvoir judiciaire bi dafa fort foray boo xam ne magistrat bi am na pouvoir boo xam ne def koy exercer te kenn mënulu ko dara mhm. nekkuñu ay nit ñoo xam ne ñii dañ leen dan dan dañ leen coacher rek ñëw teg leen Eh, samp leen déedéet. dañu nekk ay homme de politique ay ay ay d'état ku nekk raam yore sa parti xeex ba toog ñooñu bu ñu toogee nga jox leen dara. Mhm. dana ko téye ni nga xam ne moom noonu la waree. gis nga itam France ba fa cohabitation jeexee jeex na. Mhm. Mélenchon yi mu doon ut daf ko def d'un point de vue stratégique ndaxte moom gisoon na ne que parteem les insoumis feebal na gis na ne que parti socialiste yi tam euh, feebal na existe gis na ne que écologiste euh, am nañu kaddu am nañu doole waaye fooruñu numériquement mhm. gis na itam euh, parti communiste yi moom daanaka amatuñu mu ne leen ñun ñëpp nag léegi nañu boole suñu doole mhm. indi programme bu bees mu di NUPES nga xam ni dañuy wax ci wàllu économie mhm. wala wax ci wàllu sociale wax ci wàllu euh, comment dire euh, écologie mm-hmm. nga mu nekk une majorité d'idées boo xam ne bii law na ci askanu askanu France mm-hmm. depuis mouvement des gilets jaunes mm-hmm. nga xam ne mouvement contestataire population France la ñu taxaw ne d'accord ñu ci institution yi taxaw di ko xeex di ko xeex di ko xeex di ko xeex di ko xeex néewal doole président ba nga xam ne bi amatul tar lu mu ñemeñ mu di Macron donc éveil du peuple boobu loolu la Mélenchon na moom dana ko jëm a hmm. pour que ki nga xam ne moo fi toog mu mu di mu di Macron hmm. ñoom ñu mën a bu ñu amee seen majorité à l'Assemblée ñu mën a jël ci ñoom koo xam ne kii moom mooy doxal politique bi nga xam ne moo di politique économique sociale ak environnementale bi nga xam ne moom la population yu bëgg hmm. ñoom majorité di nga pour mën a am majorité parlementaire itam hmm. am nañu majorité d'idées parce que c'est un mouvement très fort waaye hmm. amuñu majorité parlementaire waaye tey jii nii Macron la mu amoon amatu ko hmm. mënatul doxale moom mu doon doxale démb bon wàññeeku na wàññeeku moo xam ne bi tey jii nii ak même Marine Le Pen ñoo ko fa ëpp doole. Mélenchon ak Marine am na ay loi yoo xam ne da ngeen di gis mhm. te bokkuñu dara. ànd ko pour mën a défendre le pouvoir d'achat du travailleur mu di problème retraite yi mu di ay yooyu dafa nekk ay programme yoo xam ne yii dafa nekk ci population France boo faloo te jëluloo ko en compte nit ñi ngay amal affaire mhm. lii am fii indi na soppeeku bu mag. am nañu yaakaar ne dañuy indi soppeeku bu mag a mag a mag a mag hmm. man am naa ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax ndaxte Macky Sall la mu mënoon dem mënatu ko tey. ndax lan te mag euh, mënatu ko déjà benn moom moom nguuram jeex na moom. Macky Sall mi hmm? ah, ñaata temps la fi toog moom problème bi combien de temps il lui au pouvoir loolu mooy problème bi dem moom faw mu dem ndaxte mënu fi sax benn. def na ñaari mandat est def troisième mandat. waaw loolooy laaj bi jamono yi de leeragul mais mais amul amul laaj <laughs> c'est-à-dire ñaari possibilité mooy def mooy am mu ne du mu ne du ko ko jël jàmm am mu ne day day ut troisième mandat xeex ak nit ñi xeex ak parti politique yi xeex ak population yi xeex ak jeunesse bi loolu bu fële ci noonu itam bu fax fële ci noonu am ñu ci dee ba mu toog mais du fi mën a yàgg. lu mu gën a yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg juróomi at moom ko ci desal mm-hmm. kon nag dellu si xelam xamal na ne jeexal na ndaxte élection municipale yi li mu wone nga xam ne pouvoir yi les jeunes ñoo ko jël dans toutes les communautés dans dans tous les conseils municipaux jël ko di ko exercer député yi moom la mu amoon mu toog ba léegi amatul loolu la mu mënoon amatu ko mu jeexal deuxième mandaam wala ut troisième mandat boo xam ne bi wóorul nga xam ne jëy rek la mën indi ci réew mi na xam ne moom jeexal na bu ko xamee xayrun bu ko xamul itam jeexal na ndaxte moom eh, nguur gu du jeex amul nguur yàlla suñu borom rek moo dul jeex ci biir loolu nag moom moom dafa war a taxaw defaraat parteem defaraat parti am ndaxte Macky am na yu mu liggéey ci réew yoo xam ne yii ku dul naafeex man na wax ne que def na fi lii def na fi lii def na fi lii def na fi lii am na fi yéene lii am na yéene am na fi yéene lii indi na fi lii indi na fi lii indi na fi lii juum na fii juum na fii na def na fi ay géej yoo xam ne ay géej nañu bilan comptable dafa am positif ak waaw. bu xam ne moom léegi jeexal na ñu préparé partiel politique bi nga xam ne moom nee na moom la tere d'ici deux mille trente cinq ñoom ñu mën ko continuer hmm. bu ko deful dana indi ay jëy ci Sénégal te Sénégal li ñu ji moo di jàmm ak salaam ku yewu ci ñun naan dafa naan nañu am jàmm ak salaam hmm. ñaan ko ci nguur gi ñaan ko itam ci opposition yi hmm. waaw kon nag moom moom war na xam ne moom jeexal na jeexal na na indi ñoo xam ne ñii ñoo mën a continuer politique am te li am ci assemblée man ni ma ko jàngatee sur le plan politique ñoom daanaka yàlla sax mi ngi koy dimbali moom. Macky Sall mi ngi koy dim mi ngi dimbali te xamu ko. Hmm. amul seetlu moom Pape Diop léegi nga xam ne euh, opposé nañu woon léegi Pape Diop ñëwaat na. Mhm. mi ngi ci assemblée. waaw Idrissa Seck nga xam ne doon na ko xeex moom itam léegi ànd na ak moom léegi Ablaye Wade ak ak ak ak wàlloom Ablaye Wade nag liggéey ni liggéey ba xam ne bii ku am vision politique la. Hmm. ku yàlla may la ndaxte moom fexe na ba partem tasul fexe ne ba partem tasul xam nga parti socialiste moom ba fa Abdou Diouf jógee. gis nga ni mun a tasaree gis nga itam euh, ab euh, Abdoulaye bi mu perdee parti bi awa bi perdee parti bi cadre yu bëreeb dem nañu région de Macky Sall mu nekk fa ak ñi nga xam ne ce sont les fidèles amuñu expérience mag ña fa nekkoon di ñoomin Omar Sarr ak ñoomin euh, Souleymane sax moom moo demal boppam ak ñu bari mu mu ne def leen la place aux jeunes encadré jeunes yooyu jeunes yu góor góorgóorlu nañu ba ñu ci bari jàll nañu ak yenn cadre yi nga xam ne fidèle nañu ñi léegi ña nga assemblée moom léegi am na un parti ba xarit bi yàlla may na ko parti bi mu taxawaat na ñanga nga assemblée moom war a négocier man sama xel ak sama xalaat moo di mu waat boppam yam libéral nga xam ne moo di doomam mu di Karim Wade ak doomam bi nga xam ne moo doom bi ko yàlla sédd mu di Macky Sall ak Idrissa Seck ñett njabootam yëpp mu boole leen parce que ñoom ñëpp ñoo àndoon. ñu ngi ciy wax de waxi retrouvailles euh, famille libérale mais est-ce que dana sotti. mais moom moo ko jëkkoon di wax moom moom nee na woon am na xalaatu taxaw fi pendant cinquante ans yore fi yore fi. yore si nguur gi. Mhm. kon nag moom mel na ni yàlla ñu ngi koy wuyu ci loolu ndaxte moom bu amee par am na ay député yu bari léegi. Mhm. ci ñooñu ils sont fidèles. ñoom ña nga ci derrière euh, Karim Wade. Mhm. ñoom Karim mooy seen patron. amatuñu beneen patron bu dul Karim. ñi ngi koy préparer le terrain Karim nga fële mu itam ñu ngi waajal boppam. li ñu mën a négocier sur le plan politique parce que loolu. dañ ko war a ne a négocier mu nekk négociation politique ndaxte politique du rek ay sentiment ay jeu d'intérêt la xam ne lii intérêt am la moom ak euh, Macky ñu juboo juboo nañu woon Massalikul Jinaan ci xarit ci kanamu xalif bi dem na fa rendre ko visite nee na woon dana dimbali Macky ci ay programme am ay lii ay lii ak léegi lii léegi l'occasion c'est peut waaye fi mu ne ndax Wade gën a jege Sonko ñu ngi ci seen intercoalition Yewwi Wallu bi wala loola yaakaar nga ni du dem. loolu man yaakaaruma ne dana sori. mën hmm. a dana sori. dama ne au oh, jii nii moom euh, Wade ak li ko dese ci parti ma xam ne il a des jeunes qui sont très dynamiques. Hmm. moo di ñu reconstituer leur famille libérale au niveau du parlement. mu nekk un bloc homogène un bloc ñu toog liggéey. kële itam di Sonko moom itam am na benn pôle boo xam ne war na ko mën a cristalliser moom ne na moom nationaliste panafricaniste la ñu mhm. mais dëkk bi bari na fi nationaliste panafricaniste tous les éléments de la gauche dans ce pays c'est des nationalistes des panafricanistes na jéem a fexe ba am majorité am autour des nationalistes panafricanistes ak du mouvement de la gauche ñu ànd ñoom ma a liggéey réew mi bu mën mais gauche boobu ngay wax ñu bëri ñu bëri tey ñu ngi ci bennoo boo jëlee LD ak euh, PIT ñoom ñëpp ñu ngi ci ñu ngi ci bennoo fi mu ne est-ce que gauche moom taxawatina Sénégal donte ñu ngi doon bëgg suqali gauche bi mais dafa mel ni gauche bi moom demee na droite. waaw déedéet gauche bi moom <laughs> am na <laughs> mën a tooñ <laughs> waaye léegi wax yi ca ñu ko dàq. Ah, am na ci ñun ñoo xam ne ñii. man dama leen di xool dama leen di daanaka xaw a yërëm dama naan ñii. Hmm. daanaka dañu xamul seen bopp. mooy ña dem benn ah. gauche ba dem droite. waaw hmm. xamuñu xamuñu seen bopp gëmuñu seen bopp. Hmm. boo gisee ñu mel noonu bëgguma sax di seen tur mais dañu nekk ay jeunes qui sont très braves. nga xam ne nekk na ci mouvement ligue démocratique ñii nekkoon nañ ci PIT nga xam ne amoon nañu taxawaay ci syndicat yi. amoon taxawaay ci mouvement de jeunesse mm. am taxawaay ci syndicat yi fi nekkoon yépp di ko anime mm. nekk à l'avant-garde mm-hmm. toog tey ñoom ñooy layal Macky Sall ci biir parteem mm-hmm. te te te ñoom war lañu mën a am seen fulak seen fayda mm-hmm. seen parti daanaka euh, ñii demee nañu nii ñii demee nañu nii ñu génn reconstituer la gauche refonder la gauche. Mm. lu mën a am la libéraux yi bu ñu nekkee ñoom seen côté am seen famille mhm. gauche bi moom itam refondé toute la gauche ñu nekk seen famille mhm. te la gauche est majoritaire dans ce pays la mhm. même Macky Sall mii jaar na ci gauche bi ñu ko wër ci gouvernement bi ñu ci bari jaar jaar na ci gauche bi majorité diine da gauche pop population yoo dem gauche moo fay toujours majoritaire ndaxte li ñuy posé ay problème moo di problème de justice mhm. problème développement problème des populations loolu mu di les classes pauvres loolu moo ëpp solo ci askan boo gis waaye nag souvent gauche yi dañuy tas tas boo xam ne bii dañuy néew doole di ànd ak ñii di bàyyi seen bopp mhm. mais ña nekk tey ak Macky Sall xale yooyu nga xam ne ils sont très ma xam naa leen ma xam naa leen bu baax de damay waxante ay nit ne dem ngeen jëli leen yéen ak ñeneen ñi nekkoon ci ci àndi jëf ngeen ànd ngeen nekk benn hmm. yéen ngeen jël le témoin de l'ancienne génération de 1968 ngeen ànd avec la nouvelle génération yi nga xam ne depuis 88 ils sont sur le terrain hmm. ak ñi nga xam ne depuis 2000 ils sont sur le terrain mais am na une nouvelle gauche. Hmm. ñoom ngay gis léegi ñii ñu ngi ci ñu ngi xalifa Sall parce que Khalifa Sall s'identifie comme état une gauche euh, sociale démocrate hmm. nga gis itam Sonko il se dit nationaliste panafricaniste donc mënuloo koo dàq ci gauche bi hmm. derrière lui am na ay milite ay anciens militants yoo xam ne yii euh, ñii ñu ngi jóge RND ñii ñu ngi jóge ci yoonu askan wi ñii ñu ngi jóge ci ci en PAI yi mhm. donc moom itam am na ay homme de gauche nañu créé ñoom itam un pôle de gauche fort homogène man na taxaw taxawaay bi wóor ci askanu Sénégal bi diriger toutes les luttes du peuple sénégalais mhm. dem au niveau des élections yi ñu jëm mu di deux mille vingt quatre mën a am une alternance boo xam ne bi dafay nekk une alternance alternative mhm. tant que bu ñu deful lool ñu ngi toog nii di lam-lamee euh, euh, du sotti mhm. ndaxte mënuñu am une majorité parlementaire boo xam ne bi tey leen neex def mhm. Macky Sall par ay ordonnance mhm. en tant que euh, président mën na dissoudre assemblée bi am na ay pouvoir yoo xam ne yi mënuloo ko jël ci moom parce que régime présidentiel la ñu nekk mais ñii nga xam ne ñoom am na lu ñuy yëkkati mu di lu bees hmm. mu di Sonko mu di Khalifa sàll mu di ñu ànd ak ñoom toutes ces coalitions là nga xam ne ñoom boo leen di seet da naan nouvelle gauche hmm. nañu ànd nekk un bloc uni un bloc d'idées homogène bu ñu demee gëm seen bopp ànd liggéey ak population yi am nag le langage boo xam ne bii dañu bugg nopp nit ñi hmm. bañ a taal réew mi parce que réew mi toll lañ fa xam si kenn du ko taal. Hmm. nit ñi dootul nangu ñu ko taal. démb la xeex pour jële fi Senghor. Hmm. xeex ak Abdou Diouf pour indi fii démocratie partisane. Hmm. indi fii démocratie syndicale indi fii liberté de presse yooyu am na fi indi fii toutes les libertés toutes les individuelles ak liberté collectives yi. kon nag mënatuñu toll ci. taaw taal réew mi pour réclamer dara ah, nañ ko def ci jàmm ak ci salaam hmm. population yi dañuy wotee de xam nañu de hmm. population yi ñu ngi wotee population boobu léegi ñu ngi sanctionné ñu ngi sanctionné ndànk par ndànk boo gisee Ablaye Wade ni ko sanctionné ak ni ñu ko fi jëlee hmm. moom yaakaar du ko woon Ablaye Wade depuis événement yi les émeutes de la faim 2007 2008. ba ba dundu mhm. waaw xale yi ñëw di ci mbedd bi di xeer ak moom nga gis xale yi en 2009 élection yi fi am mu am une alternance dans toutes les communautés rurales dans ce pays là toutes les grandes villes et toutes les grandes communautés opposition bi jël ko mhm. moom moo doon xam bi muy dem en 2012 que jeexaloon na. moo tax mu doon jiim bi indi ay ticket présidentiel ak yooyu mais jeexaloon na mhm. ah bëgg a forcé bu am un troisième mandat force bi mu def forcé woon fekk nit ñi génn nañ ci moom te nit ñi dañ ko bëggoon liggéey ni liggéey boo xam ne bi amoon yi beaucoup d'espoir ci moom moo doon na dem ci jàmb ak salaam bàyyi fi doomam yi doom yi nag mu arrangé leen mhm. tey nag yàlla def na ba doom yi ñoom léegi mën nañu daje mën nañu daje de mhm. doom yi li ma gis nii doom yi ñu si bàyyi woon démb nga xam ne dañoo tasoon man la ñu laje jii nii. kon daal yow gëm nga retrouvaille bi moom. non du du lu may gëm wala lu may ñàkk dama lu mën a am la c'est possible d'accord ñoom ñoom mën a am seen responsabilité ak seen lecture politique. Hmm. ak indulgence politique ñëw taxaw wax ko liggéey ko. d'accord ku mel ni itam l'ancien ministre la euh, euh, Ndiaye qui était le porte-parole de Abdou Wade euh, Abdoulaye Wade am Serigne Mbacké na ci bataay yi. Hmm. wax na ci ba tey yéen Souleymane ne ne ñoom ñëpp nga xam ne ñoom itam ils font partie eh, des libéraux yi nga xam ne ay doomu Abdoulaye Wade lañu mm. eh, jeexaluñu nañu ànd nekk benn mm. ñeneen ñi itam ñu ne la gauche historique la nouvelle gauche ñu ànd nekk benn mu ñu am des majorités d'idées stables ci dëkk bi mm. parlement bi mu ñu xam ci lan lañu mën a jëm gouvernement yi xam ci lañu mën a jëm boo gisee dëkk bu mel ni ay Allemagne mais ma Angela Merkel dafa ànd ak sociaux démocrates yi mhm. moom chrétien la ànd ak sociaux démocrates yi ñu yore nga gis léegi sociaux démocrates yi ni ñu àndee ak écologistes yi ak ni ñu àndee ak ñeneen yi toog mhm. une programme de gouvernement li intéressé nit ñi mooy programme de gouvernement mhm. lu mën a doxal réew mi te li ma doxal réew mi nag ay ay idée la ay xel la ak ay xalaat du ñëw wéeru na président bi moo fi teg rek dama koy tegal na di ko tàccu Eh, di ko tëggal vive le président son excellence son excellence son excellence di ko wax lu ko neex rek. Mhm. bu bu fi liggéey nga dandu dem ñëw puus tax togg keneen loolu du politique. Mm. li ma gis daal mooy di ne tey jii nii yàlla nga ñuy dimbali yàlla ku bëgg Sénégalais la. Mm. ku bëgg peuple sénégalais la. li fi indi ci ay richesse bari na fi indi ay ressources bari na fi indi ci ay mag ay wàllu yu bari nañu fi indi ci ay intellectuels ay kàngam bari nañu nañu am intelligence su toog defal suñu réew liggéey suñu réew mm-hmm. liggéey ko ci ay base yu leer base yu leer moo di mm-hmm. am na lu possible lu possible moo di les familles libérales se retrouvent leneen lu possible moo les familles de gauche toutes les gauches ñoom itam se retrouvent mm-hmm. ku mel ni Sonko ku mel ni euh, Khalifa Sall tous ces gens-là même ay lay ñoom yi yanaa maar yeeg ñoom ñëpp ak ñi nga xam ne gauche bi nekk tey ci ci Macky Sall dañ fa jóge yeneen gauche yi nga xam ne mu di LD boobu la la LD am na ñi nga xam ne LD ñi nga xam ñu ak moom am na ànd jëf yu nekk ak ñoom nañu génn xale yooyu sont des jeunes ils sont très braves dañu xeex ci réew mi mm. yore les mouvements culturels mu yore syndicat mouvement social intégrer eh, population yi intégrer la classe ouvrière intégrer la paysannerie expérience sociale boobu ñu am mm. am nañu ay idée sociale yoo xam ne yi idée de maturité la ñu nañu génn créer un pôle de gauche ànd ak ñi nga xam ne loolu la ñuy xalaat ancienne gauche bu àndee ak nouvelle gauche bu nekk un pôle homogène mm. ñooñu fu ñu toog dana mën stabiliser dëkk bi dëkk bi ñu teg ko ci yoon doxal ko ndànk fii hmm. yàlla def na fi loo xam ne lii wallahi bu ñu defee ndànk rek dañ ci mën a dana dana ko mën a utiliser dana ko mën a utiliser hmm. def na fi ay ressources suñu maamaati maam yi ñaan nañ fi xeex nañu def nañu jiyaan indi fi l'islam yi yaatal ko li religion chrétienne itam liggéey na fi liggéey bu yaatu foo lamb ñi ñu am nañu gëm-gëm foo làmb nit ñi am nañ fu ñu wéeru mm-hmm. ay kon nag loolu bu amee mais askan Sénégal rëcc na mm-hmm. te booboog léegi ñu ngi wote booboog léegi ñu ngi wax li ñu xalaat ci wote yi léegi nag li ñu soxla moo di ay majorité guidée mu nekk ay majorité claire mm-hmm. Abdoulaye Wade c'est un fin politique c'est un fin politique fexe na ba partem tasul fexe na ba am na une nouvelle génération nouvelle génération bi ñoom ñëpp ils sont derrière Karim Wade. Mm-hmm. Karim wand li koy arrangé c'est pas que mu nekk fële Qatar de. Mm-hmm. c'est pas que mu nekk dans l'opposition de. nañ ñëw nekk nañ ñëw ñibbisi dans le cadre du des retrouvailles de la famille libérale qui retrouve son rang bu fekkee ne mën na nekk premier ministre bu fekkee ne mën na nekk dans un gouvernement jubo ak Macky Sall Macky Sall jox. ku mel ni Mimi Touré mu yore parlement am Pape Diop seen biir ñoom ñëpp ñu nekk seen majorité idée élargie man bokkuma ci ñoom de. waaye dama ne loolu mooy kon yow tey soo xëyoon dégg Karim Wade du la bett. mais mais mais mais bon Ablaye moom la war a négocier. fi mu nekk nii. Hmm. loolu la war a mën négocier amnistie mu ñëw ñu am un gouvernement euh, un gouvernement euh, des libéraux dans le cadre maintenant Euh, d'un programme libéral ñu xam ne ñoom lii la ñu doxal lii la ñuy xalaat mais loolu war a mën a am la na ko négocier c'est pas la peine que moo moo moom liggéey ni li muy liggéey du tout le temps noppalikuwul ba léegi nii noppalikuwul ba léegi nii waaye nag war na am fu mu mën a yem ci liggéey bi fu mu toll nii war na mën a négocier politiquement le retour et les retrouvailles de la famille libérale mm. ñoom ñëpp bu ñu ànd ñu jox Karim Wade sa la place qu'il lui faut au niveau du gouvernement ñoom itam ñi nga xam ne ñoo ko topp ñu mën nekk une majorité euh, euh, euh, une majorité d'idées au niveau du parlement am une majorité au niveau du gouvernement ñu am ñi nga xam ne am nañu ongle de marée libéral ci lii ñu ngi ci plan Sénégal émergent d'ici deux mille trente cinq ñeneen am nañu un programme nationaliste panafricaniste yi travaille sur ce là-dessus dëkk bi moo am a am euh, fu ñu mën a féetee fu ñu mën a hmm. man li ma xalaat daal moo di ne. Hmm. Euh, avec les libéraux là qui sont là-bas. Mm. il a bien compris il est parti. Euh, Idrissa Seck a compris moom itam son son jeu est terminé il a intégré le système. Euh, il, il est là-bas donc au moins ñetti composante yi ngi nii ñeenteelu composante bi moo moo moo di Karim avec ses partisans ah moo na mën a négocier le retour de Karim Wade moo na mën a négocier dans le, dans un cadre de gouvernement fort un poste et des membres euh, de sa euh, de son parti ñu nekk dans dans le cadre de ce gouvernement là mm. dans le cadre du parlement stabiliser dëkk bi doxal ko ñeneen ñi xam si la gauche ñoom lu ñu liggéey dans le sens de conquérir le pouvoir par la voie démocratique exercer ko mën a def une alternance véritablement alternative hmm. boo seetloo depuis deux mille ba léegi ñaari alternance moo si am ñaari alternance yëpp alternance libérale la hmm. boo ko seetee li ci bari am na ay échec bari na ay échec lool hmm. boo toogee mën na ne lii lii lii lii lii la waaw tripatouillage de la constitution revoir les institutions laal fii laal fii arranger fii carte électorale bi defaraat ko fii hmm. carte biométrique yi defaraat ni indi fii ay problème euh, ay parrainage déréguler système bi yëpp pour mën a toog hmm. et tous les projets et tous les procès qu'il y a eu mais yooyu ce sont des erreurs ce sont des erreurs politiques mhm. c'est des fautes politiques yoo xam ne yii c'est c'est au compte des des, des alternances libérales yi nga xam am ci dëkk bi mhm. la gauche nag man na indi leneen ci réew mi. les véritable programme de développement reconstitution bi itam lu mën a nekk la reconstitution de la gauche. mais dafa war dafa war dafa war a nekk une une logique historique. Mhm. en 2014 ñun yëkkati nañu woon cadre boobu refondation de la gauche. Mhm. en 2014 yëkkati nañu woon loolu ba dajale gaañi ba dajale eh, ñu bari ñu xam ñi LDL ñu jógee ñi PIT ñi andi jëf ànd Landing Savané ñi andi jëf Mamadou Diop Decroix yeneen génération yoo xam ni sax eh, eh, ñi ñaan ñi sax ñaanal ñoom ay mille neuf cent soixante mille neuf cent quatre-vingt-huit la ñu. ñenn ñi xam ne ñoom ñoo de euh, la gauche de deux mille ñi nga xam ne ñoo fi jëlee Abdou Diouf dajale leen ñoom ñëpp ñuy liggéey. li tax mujjul sotti. li tax mujjul sotti parce que ku nekk dafa amoon son son agenda ku nekk hmm. bëggoon na dem élection euh, de deux mille seize euh, deux mille dix sept bi bi boo ñëw législative wala préparer élection présidentielle loolu moo tax hmm. mais tey jii nii nit ñi war nañu def bilan bi. xam ne gauche yi dafa war a am majorité de gauche moom moo am ci population yi population yi ay soppeeku lu ñu bëgg ay transformation lu ñu bëgg yoo xam ne dafay dépasser de loin li nga xam ne moom libéral yi moom la ñu fi indi loolu nag il faudrait que ñii ak ñii mën a ànd mën a liggéey loolu buñ ko deful bon réew mi dana du tooge à gauche du tooge à droite te li fi am ci ay ressources bari na kaar kaar man dama ne ressource bi nga xam ne moo gën a ñàkk solo. Hmm. ci ci ni ma ko mën a waxee mu du xorom sax foo dem ci réew mi am na fi. <laughs> réew mi li ko wër ci ndox mu di le fleuve Sénégal. Hmm. mu di l'océan Atlantique la côte la grande côte mu la petite côte. Hmm. xam ne dafa wàcc liñ fi am ci ay mangrove liñ fi am ci ay sites touristiques. liñ fi am ci ci ci ci mine ak énergie mu di pétrole mu di gaz mu di zircon mu di or yooyu yëpp nekk ci réewu Sénégal moo ñu développé Sénégal nit ñi mën mënuñu ci bénéficier hmm. mais loolu loolu loolu cat la kon nag war nañu def ndànk war nañu bàyyi xel ci ne war nañu toog euh, seetaat ku nekk suñu bopp hmm. ku nekk suñu bopp hmm. waaw soxlawul sànni xeer nañu ànd dans un débat civilisé nga wax li nga bëgg lan la waxanteeg nit ñu am ci yow confiance fal la. Mhm. Ah? xam fi nga jëm ak li fi nekk ah. ñu xam fi nga jëm ñoom itam. ñu xam ñu fi nga jëm. am na am na benn jamono. Mm. le président Mbow. Mm. maa ngi ko nuyu bu baax di ko sargal. Amadou Mokhtar Mbow. Amadou Mokhtar Mbow muy tam mag mu am taxawaay ci askanu réewu Sénégal mu doon démb ak tey. Mm-hmm. dafa toog xoo gis gaa yi gaa yi sonn lool di xëccoo mu ne waa mais ñii di xëccoo ngóor gi bu ñu ko jëlee qu'est-ce qu'ils ont fait pouvoir. Mm. ma ne voilà la question qui se pose. Mhm. ndaxte moom para la nekkoon para Sénégal. para Sénégal bu Abdoulaye Ly. ak Abdoulaye Ly ak ak ak ak ak ak ak Assane Seck. Mhm. mu di un parti très fort mhm. ku ne woon ne para du jël gi. daane Senghor ñu ne la déedéet. événement 1963 man j'étais de ces événements aux années du centenaire. xeex bu méttee métti nee na rey na près de cent personnes. Hmm. parce que le PARA dafa nekkoon un pa un parti très fort un parti très puissant. Hmm. ñoom ce sont des intellectuels yoo xam ne jaayuñu seen bopp dañoo jàng. Hmm. jaar fu ñu war a jaar xeexal si nit si syndicat yi enseignants yi ci syndicat des recherche des chercheurs. syndicat des travailleurs. nga xam ne lu askanu Sénégal wax ñoom xam nañ ko fa la ñu taxaw. mais ñoom bu ñu toogee ba gis ne ñoom seen bopp doxul nga xam ne kon doxul. Mm-hmm. Ablaye lii soog a def muy sax menacé man moom ma ko wax moom ci boppam. Mm-hmm. ne soog a def na ko boo ñëw ci gouvernement bi rek dama lay jàpp tëjaat la. Mm-hmm. en 1966. parce que Senghor toog la ba amutoon benn solution ci réew mi. amuloon benn solution ci réew mi. jaayiste nekk nañ fi am nañ fi puissance. mouvement des jeunes am nañ fi puissance mm. population yi ñu ñu ñu ngi revendiquer mm. xam na ne que PRA am na doole bu bu doole ci réew mi mm. Cheikh Anta Diop moom tam ak partisan yi ñu gisul mu di FNS ak DMS ñu ngi ci réew mi Majmout Diop yi tam ay partisan li PAY ñu ngi ci réew mi Senghor amul fenn fu mën a jëm faaw rek mu am fu mu mën a wéeru mu mu négocier dafa négocier. dafa négocier ak PRA négocier ak Ablaye lii loolu moo tax ñoom waa PRA en 1966 ñu accepter intégrer le gouvernement. ñu jox leen ay postes. Hmm. ay postes ministre de la santé éducation nationale mu dem moo doon secteur bi gën gara garaaw 1960 bi gën bi am. moo moo nekkoon <laughs> les ministres de l' éducation nationale. loolu loolu mooy ah. politique. compromis compromission négociation. mais compromis négociation. loolu yàgg na fi. loolu yàgg na fi. Mhm. li amoon ba ba am instabilité boobu. des ba ba faire face aux événements de 68. mën naa amaatee ba ba ba ba ba continuer ba ba 81 ba teg fi kii kii. bi muy dem. Mm. néew ma nekk de ce la même chose. aujourd'hui parce que population début ak tey. waaw tey moom nit ñi dañoo yeewu te ay bañkat lañu. dañoo yeewu te bañkat yi dama ne bañkat yi ñoo ëpp. waaw le peuple de gauche est majoritaire dans ce pays là. Mm-hmm. le peuple de gauche est majoritaire dans ce pays. mooy bañkat mais malheureusement mais malheureusement le peuple de gauche est dispersé. Mm. le peuple de gauche n'a pas encore pris connaissance de de, de sa force réelle. Mm-hmm. peuple de gauche bu gëmee boppam gis boppam organiser boppam. mais dana jël nguur mi dox réew mi teg ko ci yoon yi. nu mu bëgg a changer ko. nu mu bëgg changer ko. jërëjëf professeur. waaw ah, jërëjëf waxtaan bi macha allah leer na ah, am na solo yaakaar naa ne tax na tey ñu ñu mën a gën a euh, euh, jàngat yenn yenn situation yi dellu démb ndax euh, waaw lu ñu gis tey rek daanaka bu ñu xoolee démb itam dañu fay gis loo xam ne daal lu méngook moom la ñu mën a itam jëlee ci démb loo xam ni tey danañu mën a génne ci ci yenn situation yi en tout cas amoon nañu mbégte lool dalal encore ci démb ak tey di la ñaanal gudd fan bu ànd ak wér gu macha allah amiin jërëjëf Faye Fatou jërëjëf professeur Mansour Aw jërëjëf nekkoon historien nekkoon jàngalekat itam ñu ko doon dalal tey waxtaane wàllu politique euh, démb ak tey euh, waxaale itam ci diggante Sénégal ak euh, Mali xam ngeen ni ni ki démb 20 août 1960 le Sénégal tàqali ko woon ak Mali dem ak cëggal guyam doon réewum boppam lu ko jiitu ñaari réew la woon yoo xam ne ñoo àndoon nekk ci li ñu naan fédération du Mali jaa ngeen jëf yéen itam ci ànd beex ñun gërëm leen bu baax baax si déglu